بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حمد الله جل ثناؤه جناو سنت يالا من سما لا تر موغي جيم سي مبولم سوبي فقراء وي كو نيك سي تورم اك سي سانتام سي لودو ني كاي جاغلال كن جناو بو نيو mu ne mu ngi jugee ci ahmed ibn ahmed tijaani gannaaw bu ma ñaanee yàlla ñeexal mboole seen ak way jagoo seen mu bëbbal ay géeji wëttoom ak gërëmam tukkee ci moom ñu lim may ñu gën a ci aarifin billaahi ci ay jaamam ak ñooñ jagle ñi nga xam ne borom xususiye lañ ba nga xam ne seen ñaawteef yépp dana ko faas bu jàppee kenn ci yéen ay ñaawteefam seeni bàkkaat ak seen jeexiti njuumte yépp mu jàkkaarle kook jéggalam ak jéllalam ba du jàkkaarloog dara ci seen yooyu bañ leen ko jàppee mu ne maa ngi ñaan yàlla mu bind leen yéen yëpp ci diiwaani ñooñ texe ñi nga xam ne bindut fa lu may ñi gën a màgg ci wàllu yi ak ñooñ jagle yi ci bind goo xam ne dootul ko faaf ba mukk dootul ko soppi ba mukk yàlla tusngal seeni bët ci leer yi nga xam ne moom la wis ci roxo yi ci ëzal jàkkaarloog yéen ci ngëneelam ci àddina ak ci àlaxira xool leen ci bëte biir maandeem bi nga xam ne kum ci xool dana la soril mbooleem sibeef yi ci àddina ak ci àlaxira gannaaw loolu mu nee na nekk ci seen xam xam-xam-xam bi maanaa na ngeen xam ne mbooleem jaam yi ci ad ci kër gi maanaam kërik àddina ñu ngi gaarlu ci ay fetti nattu fetti nattuy jamono maanaam ñu ngi ci taxawaay yoo xam ne mënuñoo mucc ci nattu yi benn musiba wàcc ci jaam bi wala jaam bi amoon xéewal xéewal gi tàggu moom wala mu amoon soppe bu mbuggu ñi tiitloo ci ci ma mu tàggu moom ci dee wala xalkare wala leneen yi nga xam ne nii amut fu mu kenn mënu koo faram mu ne nag tépp koo xam ne lenn ci yooyu mu tudd wàcc na ci yow na nga muñ muñ ba jéem a góox weex-weex yi ndax ngir natt yooyu ak weex-weexi àddina yooyu moo tax jaam yi wàcc ci kër ak àddina gi képp koo xam ne sa fasu naaru góor mu ne fakkatalu na ci loolu fakkatalu bi maana fakkatalu ci ñàkk mën a enu diisaay yooyu ak ñàkk mënanteeg li nga xam ne mooy xew ci moom ci ay diisaay jamono boobaa mu ne na nga taqoo ñaari mbir yi mu tudd kenn ci ñaar yi wala ñaar yépp bi ci gën a mat nag mooy bu njëkk bi mooy lan mooy nga taxoo yaa latif junne yoon gannaaw julli farata bu nekk bu fekkee mun nga ko fekkee mën nga ko fekkee mën ngaa taxoo yaa latif gannaaw julli farata bu nekk boo ko mënta def gannaaw julli farata bu nekk nga koy def junne yoon gannaaw julli suba ak junne yoon gannaaw ngoon mu ne loolu boo ko defee da nga gaaw a am xettiliku ci musiba yooyu yoonu ñaareel bi mooy téeméeri salaatul fatixi nga addiyal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bu fekkee mën nga koo def téeméer gannaaw julli farata gu nekk boo ko mënut nga koy def téeméer gannaaw suba téeméer ci guddi ba tey nga eena ci loolu ci latif bi ak salaatul fatihi yi nga xam ne salaatul fatihi bi nga xam ne yaa ngi koy addiyal yonent bi sallallahu alayhi yéene ci yàlla xettali la ci lépp loo xam ne ni yaa ngi ci surux yàlla gaawe sa xettali ci njàqare yi nga xam ne tim yaa ngi ci nekk boo defe loolu mu ne nga am xettali gu gaaw wallu gu gaaw ci num gën a gaawee ci waxtu num gën a gaawee ba tey mu ne ko am ay bor yu bëri lot walis man koo fay wala sag njaboot bëri sag ñàkk tat say buntu sabab yi dund tëj mu ne defal loolu mu waxtim ba tey ñaar yooyu mu tudd wala ñoom ñaar yépp boo ko defee mu ne da gis yéer yéer maanaam da nga gis yombal ci sa mbir ci yàlla ci nu gën a gaawe képp koo xam ne daa ngi tiit njàqare alkare goo xam ne dangay ngay tiit mu tàbbi wala ngay tiit tooñaange aji tooñ te mënoo notanteeg moom wala ngay tiit sax koo ameel bor boo xam ne amoo benn ngant boo ko mën a jox wala lay te amoo benn xaalis boo ko mën a fayee wala ñaar yooyu yëpp a ngi ci sax wala lépp loo xam ne nit daf ciy jàq mune na nga takkoo yooyu mu tudd ba tey kenn ci ñoom ñaar wala ñoom ñaar ñëpp yaa latif junne yoon gannaaw julli farata bu nekk wala yaa latif junne suba junne ngoon wala salaatu fatee téeméer yoon addi ak yonentu gannaaw julli farata bu nekk wala salaatu fatee téeméer yoon suba ngoon mu ne loolu dana huri maanaam dana dindi njàqare yi nga xam ne nii wala tolof tolof yi nga xam ne yaa ngi koy ragal bu ci booree nag sarax mu néew wala mu bëri ci eeney jañ lépp loo xam ne ni mu ngi yaakaar mu tàbbi ci lu muy ragal wala ci eenee gaawal muccam ci lépp loo xam ne tàbbi na ci wala tiitaange gum nekk ba tey loolu dana gën a gaawal xettalikoom ak yër-yëram ci loolu nga xam ne mu ngi ko doon tawal mu ne taalibe yi ba tey na ngeen dénkante muñ yàlla ko wax yàlla wax ci alquran wal asr inna al insana la fi wax ne doomi aadama perte na mu mel ni perte googu ci ñëpp la jëm mu wax la boo ci buggee mucc nooy def ba mucc ci ci ñeent yii la illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil xaq wa tawasaw doomi aadama yëpp perte nañ ba mu des ñan ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ba pare jëf farata yi ak naafile yi dénkante dëgg dénkante muñ moom la Cheikh Tidiane feddali moo tax mu ne na ngeen dénkante muñ na ngeen dénkante yërëmante yërëmande tawaasaw bil marxama ba tey alquran ko dénkaan mu ne na ngeen moytu na ngeen moytu kenn ci yéen di neenal xaqi ay mbokkam neenal xaqi say mbokk ci lenn ci yi muy tudd benn di def lu lay may mbëggeelam wala cañal ko ak loraangeem wala dimbale nit ci njàqareem yépp kenn la ci xaqi nit say mbokk defal ko lu lay bëggee wala jañal ko loraangeem wala dimbale ko ci xat-xat Cheikh Tidiane ne képp koo xam ne natto nañ la sànq xaqi mbokk gi dañ la nattoo sànq xaqi yàlla yi kon xaqi mbokk geeg xaqi yi ñoo lënkaloo bo sank xaqi mbindeef yi da nga sànq yi yàlla mu ci ndimbalal jaam bi feeg jaam ci ndimbalal mbokkam yonent ko wax cheikh na ngeen wëttu seen xol yi sàmm ko ko bu ngeen gisee kenn mu def dëgg goo xam ne dafa uuteeg seen bëgg-bëgg yi yéen walla muy màbbu baatil neen boo xam ne dafa uuteeg ba tey seen bëgg-bëgg yi na ngeen moytoo bañ kooku walla ngeen koy lor koo xam ne dafa taxawal dëgg koo xam ne yow neexu la ci sa xol wala mu daane baatil goo xam ne daane gim ko daane mu la naqadi bul jéem bañ kooku ci jëf jooju mu jëf walla nga koy jéem a lor ndax loolu mu ne dañ koo lim ci bokkaale yàlla yi yonent bi sallallahu wax na ne bokkaale ci sama xeet mu gën a nëbbatu melentaan boo xam ne xorondong buy dox ci kaw doj xorondong buy dox ci kaw doj nim làqatoo jafe gis noonu la bokkaale yàlla mel ci jaam yi jaam bi daf koy def te du yëg sax ne mu ngi bokkaale yàlla li gën a garaaw nag li gën a ndaw loolu mooy nga bëgg nit ci baatil lu gën a ndaw ci bokkaale yooyu mu ne mooy nga bëgg nit ci baatil nit kuy def lu jaaduwul nga bëggee ko ñàkk def lu jaaduwul googu muy def loolu tax mu neex la walla ngay bañ nit ci dëgg walla comme li yonent bi sallallahu alayhi wa lii maanaam ne na ngeen sàmm seen xol yi ci ki nga xam ne dafay def baatil wala muy màbb dëgg goo xam ne ni dafa dëppoog seen bànneex bakkan na ngeen ko moytoo bëgg wala ngeen koy tagg ci loolu ndax loolu lépp dañ koo konte ci bokkaale yàlla mu ne ku gëm yàlla dafay bëgg dëgg bëgg ñooñ dëgg bëgg it ñi taxawal dëgg ak bëgg ñiy jëfee dëgg bañ baatil bañ neen bañ ñooñ baatil bañ tim ñi taxawal baatil wala jëfee baatil islam dabaatal ba tey ne la ma waxoon ci sàmm xaqi mbokk yi na ko def ci lu duhut nga ci toggoo diisaange loo mënut wala nga ci toggoo manant ak bakkan waaye def ko ci kem ni nga ko mënee ak ni kem ni ko waxtu jàppandee lu may ci yenn gaar gaar yi nga xam ne yaa ngi ci ragal noonu tukkee sa digganteeg sa mbokk walla daggante walla yàqu xol boobaa moom loolu na gaaw ci defar xoli kooku ndax loolu dana bijji ngërmaande yàlla lim waxtim ci bañ ñooñ baatil loolu barabam na nekk xol rek ndax bu génnee ci xol ba jëm ci benn ci cër yi gis kuy def lu jaaduwut loolu naqadi la ci sa xol na em ci sa xol rek waaye bu génnee ba àgg ci sa cër yi boobaa dafay waral leneen lu ñu sib lu gën a mag liñ doon bañ yow ci waaj ba gis ku ci def lu ñaaw yow duuloo atekat loo buur jullit loo dara bu naqadi la ci sa xol nga ne duma em ci naqadi ci sa xol waaye waa ji daal guddee danaa jël xet rek tëgg ko ci bopp mu xëm wala nangam boobu bu ko moom it mën a laa dóor paaka wala ñu yóbbu la police wala leneen wala leneen mu gën a bon moo tax mu ne bul ko génnee sa xol bi di ko jëfee intaha min imdaaya radiallahu anhu ba tey bind na yenn jàngkati xam-xam yi moom Cheikh Tidiane wax ne gannaaw bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam muy wax kooku mu bind leetar ne ko li ma lay waat di la ko dénk ci yàlla ci sa mbóot ci sa biir ak sa biti mooy sellal sa xol bi sellal sa xol bi ci uuteeg ndigalam moom yàlla ak sukkandiku ci yàlla ci sa xol ak gërëm atteem yi ci sa mboole mbir ak muñ dawali ay dogalam ci sa mboole mi xaal na nga dimbandikoo ci loolu yëpp nag bëril tudd yàlla ci sa kem kàttan tudd yàlla ànd ak teew ak loolu daf lay dimbale mu ne ci lii mu dénkaane nii li gën a màgg ci tudd yàlla yi nag ak njëriñ ca gën ëpp njëriñ mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak teew ak nga julli ci yonantu julli la waaye tudd yàlla ci topp ndigal ti mu ngi ci ndax amul benn julli gooy jullee ci yonantu baatab boo tuddee yàlla mu ngi ci allahumma salli ala sayyidina muhammad wa salli allahumma wa salli allahumma hmm? allahumma salli wa sallim allahumma bi nga njëkk wax tur yàlla kon julli ci yonent tudd yàlla la emut ci tudd yàlla waaye dafa nekk loo xam ne amul benn charte pour ci war koo nangu xaal bu jaam bi mën a mer rek mën naa tudd mën naa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu tax bu sëri waxoon ne tazawadi taqwa fa in lam tastati fa min alsalaati ala annabii tazawadi yóbbalooxoo yóbbalooxool ragal yàlla jaam bi bu juddoo rek mu ngi ci tukki jëm ci boromam tukki moomu fa muy la la fay jëriñ mooy ragal yàlla tax mu na nga yóbbaloo ragal yàlla bu la ragal yàlla jafee mu ne nga yóbbaloo julli ci yonent du ne dafay oyofal ragal yàlla de ragalal yàlla bu la jafee yóbbalowal julli ci yonantu ndax julli ci yonantu boo ko yóbbaloo mu àggale ci àggale la ci ragal lu tax yàlla boo jullee ci yonantu mu julli ci yow te yàlla wax ne bu jullee ci jaam yi lim leen di defal mooy génnee leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer huwa alladi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yuxrijakum min azulumaati ila nur loo tax sëriñ si sax dañu wax ne ku sëriñ bu mat sax jafe julli ci yonantu mën naa nekk si sëriñ kon nag ku am sëriñ ba pare di julli ci yonent nan la war a mel moo tax Cheikhu Tidiane ne lu gën a mag ci tudd yàlla yooyu mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ànd ak teew ak xol ndax moom lamboo na mbooleem càkkuteefi àddina yeeg càkkuteefi àllaaxira yi daf leen di garanti ci looy jañ loo ragal di ko jaañ wala loo bëgg di ko xacc ci mbir mu mën a doon mu ne ku bëril julli ci yonantu da bokk ci ñi gën a mag mat ci tànneef yàlla yi ku bëri jullil ci yonantu da bokk ci ñi mbiram ñaareel mu ne ko maa lay li ma lay dénk mooy nga bàyyi yu xaram yi yi xaraam alal yu xaram yi ba koo lekk ba koo sol ba koo dëkkee mu ne ndax lu dagan dafa mel ni mooy kutbu bi nga xam ne mbooleem jaamu yàlla yi ci lay wër xam nga xutbu li mu doon firi boo gisee par filme yi da nga gis gën yu yàgg yooyu nga xam ne moom la dëbbee nii rek ci digg bi da gis benn benn weñ bu nekk ci digg bi xam nga affaire bi yëpp moom lay wër loolu moo doon xutbu loolu mooy firi xutbu mooy loo xam ne lépp rek moom lay wër loolu tax mu mellalee fii lekk lu xalaal ne dafa mel ni mooy xutbu bi nga xam ne mbooleem jaamu yàlla yi ci lay wër ku sànk loolu lekk lu dagan sànk nga njëriñal jaamu yàlla ku sànk lekk lu dagan mu ne sànk nga njëriñal jaamu yàlla yontu wax na ci hadis mu ne koo xam ne li ngay lekk daganul li ngay naan daganul li ngay sol daganul ngay ñaan yàlla fu ñu lay nangule moo tax bokk na ci sëba bi nangu ñaan nga bëre ba lekk lu dagan Cheikh Tidiane ne moytul nag di wax naan waaye lu dagan fu ko nit di amee ñu bëri nga koy wax sax ne ñi toog ci saal bi sax xel yaa ngi koy wax ah sama na ji lëndëm ji nit jëlee lu dagan ndax boo dóorul ndax da am bañ a am bañ a am yàlla gën naa baax di la sant loo xam ne munta am kulu min at-tayyibaati wa'malu saalihan Cheikh Tiyaan ne moytul di wax ne loolu fu ko nit di jëlee mu ne am na bu bëri maanaam lu dagan lu am la ci suuf si bëri lool ak ci jamono ju nekk waaye nag nit a koy fàggu nit a koy ut nit a koy ut ngir joox ndigali yàlla ci zahir ak ci baatin ànd ak sàmmuhanteeg loraangeeg waxtu bu fekkee ne lu dagan lu wër te loolu sàmmanteeg loraangeeg waxtu nag dafa laaj fiq xam fiq ba nga xam ne danga xam nit lii kat buñ tolloo ci jamono sàngam xellut waaye buñ tolloo ci jamono sàngam nit man koo jëfandikoo xam nga mbedd dañ la koo tere waaye boo nekkee ci àll xiif bëgg laa rey nooy def daga na nga jël ci lekk ñenn fuqaaw yi ne na nga lekk rek am ci waaye ci mesewu malik yi dañ ne na nga ci jël lekk ba suur jël ci yóbbal ba am lu dagandoor ko sànni moo mu ne xam yooyu nag dafa laaj yaatu maarifa xam sharia bu baax ku àgg foofu ci xam-xam mu ne am lu daggan loo lekk du la jëfe bi nga laaya ji li wax kulu min at-tayyibaati wa amalu saalihan lekk leen lu sell def lu baax daf ko boole moo tax ñu ne kul maa chita fa mislahu tafaal mislahu tafaal xam man chita fa innaka ala diin lekkal lu la neex lu mel ni li nga lekk lool ngay jëf bu fekkee lu dagan ngay lekk def lu baax daf lay yomb bu fekkee li ngay lekk daganut kàccoor yim daf lay yoon moo tax yàlla méngale ko lekk leen lu teey def lu baax lekk lu teey dafay jàppandal def lu baax lekk lu lëndëm it dafay oote rek jëme ci lu lëndëm rek waaw lekk ba suur ci loo xam ne nii leerul dara ñaare yaa ngi koy da yaa ngi koy reesal ci danse rek doo ko reesal ci julli guddi mukk dans rek mu ne li nga xam ne faw jaam bi def ko gannaaw lii mu wax nga xam ne mu ne mooy tàmbali mboole mbir yi te mooy dayo ba it mooy nga aj sa xol bi ci yàlla làqu ci yàlla dellu ci yàlla bàyyi lépp lu dul yàlla ci lu matale ak ci lu jaga bu fekkee jaam bi am na jàppandal ak tukki xolam jëm ci yàlla ci mbooleem wàll yi ak ci mbooleem xaal yi ci yëngatu xolam ci yëgam loolu de mu ne mooy daya bi boo mënul loolu taqooxal gannaaw julli gu nekk ñaan gi nga xam ne ñu bari ci yéen mas nañ koo am am nañu ko mokkal xam naa du ñàkk ñu bari ñu ko taqoo ñetti yoon walla juróom-ñaari yoon ba pare boo nekkut ci julli nga koy rombale ci sa xol ba pare en sa bakkan bi ci maanaa yi muy wax ba loolu mujj nekk sa xaal mooy lan نعم gi lan la allahumma alayka muawwali wa bika malaabi wa ilayka ثقتي وعلى حولك وقوتك اعتمادي وبجميع مجاري أحكامك رضائي وبإقراري بسريان قيوميتك بكل شيء وعدم احتمال خروج شيء دقة وجلع عن علمك وقارك حتى لحظة رسولك هم غير نيب أم غير كل waaye ndax ñëpp a koy jàng nag bëri rek dañoo foog ne ah sëñ ma joxoon na ma ko ca xatam def naa ko yaa ma ma nekkee ci jumaa ji def naa ko ko boo defee nag da ngay toog di jàpp eh, garaaw yuñ denc yu yoo xam ne dañ ko denc amuñ lu gën a garaaw yii Cheikh Tidiane wax nekk yaa ngi seetlu tumuranke loo xam ne dafa war a ñàng dafa war a tumuranke dafa war a xéeme da war a sol mbubb mu weex da ngaa war a dem ba ci buntu géej ga da ngaa war a def nangam fekk yoon wi war nañ la ko waaye doomi aadama yi dañoo miin oyofal loo xam ne sonaluñ leen ci waaw moo tax moo tax bu fekkoon ne nit ñi seen alal la dañ ci sonal nit ñi ndax mu jaral leen ndax mu jaral leen surtout yaa na ko wax de ndax ñaan gi li muy wax dégg ngeen ko benn baat rek doy na ci bi xaraari bi sariyaane xayyum ya ci fi kulli shay maa ngi nangu ne sa kàttan moo dox ci lépp lëf te dara mënta génn lu tuuti walla lu rëy mënta génn sa xam-xam maa ngi saxaltim ne yow yaa not lépp ba sama jotaay dal bi sax yaa ko not hmm. wax nga ci ne tim ak maa ngi gërëm sa mbooleem dogale atte ba ci yàggee di ko jàng di ko xalaat da nga dem ba lu yàlla defe mu neex loolu nag ku ci àgg da noppalu ndax àddina moom ku jàpp ne da nga nekk di am la neex bët bu set ndax nga sa bopp loo nekk nekk xarit yàlla yàlla dana la nattu ci sa njaboot dana la nattu ci sa alal dana la nattu ci sa soppe dana la nattu sa jëmm dana ci sa bopp noona bi yàlla xeex ak moom yàlla bàyyi ko mu ëpp la doole gañe te mooy noon bi yow yaay soppi bi noo war a def bu boobaa te boo gërëmul rek génn ci daayira soppi yi dugg ci daayira noon yi gërëm rek nga mën def hmm? yonent bi nga xam ne lu yàlla bind moo tax yàlla bind ko daan jaar ak àddina fi jaar fi nit ñi di jaar ak àddina yëpp jaar na fi nit jaar ak àddina ak àddina bu àggutoon ci xol bu gërëm yàlla nu muy def doom yu góor yi fim leen di bëggee rek la ñu dee nga loolu métti na génn ci xeet gën cee baax amee loo xam ne ku ko topp mucc ñi lay xeex di xeex képp ku lay dimbale ba ñuy xiif ba amatuñ lu ñuy lekk te moom la yàlla tànn ci jaam yi bul foog ne man ngaa xaritoog yàlla ba doo am lu la naqari am na góor yàlla yoo xam ne sax buñ amatul lu leen buñ am buñ buñ buñ gisut xat-xat sax dañuy tiit moo tax dafa am jigéen joo xam ne saalixatu la dafa nekk ak jëkkëram mas ta gis jëkkër ji am benn natt ci mu nekk yii daal boo demee kàccoor la rek koo xam ne yàlla mas koo teg benn natt rek mu ne waa ji fase ma waa ji ne ko lan la mu ne ko fase ma rek ñibbi rek ñibi rek waaw ah waa ji ko baax na kon ma gunge ma dimbale la ci jëlal la sa bagage waa ji daal bi mu enoo bagage ndaw si di ko dimbale ba muy jaar ci escalier rek la daanu damm ndaw si ne ko foo li ma limatuma mu ne ko ah lu la xàccloo mu ne ko damaa mas te gis yàlla nattu la ma foog ne yow kàccoon nga moo tax waaye bi ma bëggee dem nii yàlla nattu la ma xam ne nag li ma foogoon amut kon àddina kër ak nëx nëx la du kër ak neex neex yi nit ñi foog waaye nag jaam bi bu nangulee yàlla dana dem ba dootu nëx li la koy may mooy lii Cheikhu Tijaani loolu la bàyyi amoon ba wax ne zaala takadduri zaala takadduri wa zaaka azamu mawhibatin wahabaha man yukrimu mu ne man su ma nëx nëxi xol dañ na su ma nax naxi xol deñ na te mu ne loolu mooy may gu gën a mag bu yàlla may jaam mooy dem ba nangul yàlla rek dem ba nangul yàlla dul ne bàyyi daf ko wax rek de ñi xam bàyyi tim dañ ko wax ci bàyyi lu caam gaja gaja waxoon balaa balaa nga koo gën a boo xoolee barxaama ko muy koo gën a xeem boobu aw naqar feeñ boo xoolee Barhama Niass gis ko muy muñ mu nga loolu duut duut jéemantu ak wane na yaa ngi muñ ndax booy wane ne yaa ngi muñ di wane ne da ngay ree nit ñi dañ la xool xam ne reexoo moo tax olof ne mag nga ne ŋàññi te réew ne ŋàññi te réew kii ree li muy def yëpp def nga ko waaye ñi lay xool xam nañ ne reexoo parce kontaan dafay feeñ ci bët dafay feeñ ci xarxanam dafay feeñ ci du kon lii Cheikh Tidiane ne ku ko takkoo <coughs> en ci sa xol bi danga dem ba mu may la boobu xaal ku sax ci loolu lépp lu mu gisati ci xaali bakkan lu dëppoowut ak li ñaan gi di wax dafay fàttali boppam maanaay ñaan gi rek ba pare muñ loo bakkan bi day yomb ci bakkan bi mu muñ yomb ci xol bi mu enu loolu yomb ci xol mu bàyyi lépp lu dul yàlla mu ne lii nag bunt bu màgg la ci xam-xam boo xam ne ki ko xam mooy ki ko mos ki ci mos li gën a ku ci mos lu gën a néew ci xam-xami góor ñi te xam li luy dayoom du ko neenal mukk na nga wëttu xewenal sa bakkan bi kem sa kàttan ndax dund bi dafa gàtt tukki bi dafa gudd pakk yi jafe xen bi diis xisaab bi yàlla yàllay xisaab ci kanam yàlla nekk xisaab bu tat jëfee ndigal yàlla rekk nag mooy li nga xam ne moo la mën a musal ci jafe-jafe yooyu nga xam ne jàmmanu ci ñàkk jaar moo tax mu ne sëriñ bu baax njiit aarif billah sayidi muhammad simak radiallahu anhu wax na ne ku jublu yàlla ci sa xol yàlla jublu la ci yërmandeem dàqal la wala jublul la xarxanami mbindeef yi maanaam xiir nit ñi jublu ci yow ku dëddu yàlla nag yàlla dëddu la ku dëddu yàlla yàlla dëddu la mu ne kuy def léeg-léeg nga jublu yàlla léeg-léeg nga bàyyi yow yàlla tim léeg-léeg rek mu yërëm la léeg mu mu boo buggee xam daal noo toll fa yàlla seetal nu yàlla toll fi yow li war daal mu ne ci gàttal daal jàppal ci yàlla te ba lépp leneen lu ma yàlla buñ la nattoo jëflanteeg mbindeef yi ak jaxasoog ñoom nanga nga jaxasoog ñoom na jëflanteeg ñoom ngir yàlla yàlla dafa bëgg rafetal jëm ci ay mbindeefam mu ne ki mbind leetar bi li ma lay gën a sonju di la ci gën a xiir mooy bëril julli ci teew a xol ci yonent bi li ma lay gën a sonju di la ci gën a xiir mooy bëril julli ci yonent bi ànd ak teew sa xol julli ci bi mu ne mooy kanzul azam mooy ndaxañ teef bu màgg bi mooy trésor bi mooy ndaxañ teef bu kawe bi kon nag xam nga mag lu ko ñor rek lay mbaamtu jàngoon nga ko ci leetar bu njëkk bi muy dénkaane tudd yàlla ne ba ca gën a màgg mooy julli ci leetar bi ba mu dénkaane dénkaane yi bëri na yu foor yu kawe yu taaru yu tànn waaye mu ko jeexale ci li ma lay gën a xiir nag mooy julli ci yonantu ànd ak teew ak xol julli ci yonantu ànd ak teew ak yaa ngi ànd ak moom ci julli bi ngay julli baat yi boo xamee baat yi yaa ngi koy teewlu boo xamul baat yi sax xam nga yonantu yaa ngi teewlu yonantu yaa ngi koy teewlu ak màggam ak baaxam ak taaroom ak jege yàlla ak luy maanaa yi sax julli ci yonantu ku nekk rek ci maanaa bi nga xam ne ca la àgg loolu mooy teewlu julli ci yonent bi rek yaa ngi dem yi julli ci yoon bu fekk sa xel maa ngi tukki fu nekk dëgg la loolu bu mu la teree sikar bu mu la teree sikar bul wax ne a ah, sikar dafa war a ànd ak teewlu kon mënumaa teewlu di ma sikar déedéet sikaral rek ndax sikar ànd ak ñàkk a teewlu dana la àggale bés ci sikar ak teewlu sikar ak teewlu benn gendeek moo gën àddina ak li ci biiram sikar ak teewlu dana la àggale ci sikar ak faddu kon sikkar ñàkk teewlu kooku dafa faddu walis sikkar si faddu walis ki ñuy sikkaral bokkut ak faddu gi mujj gi sikkar teewlu nag moom ngay éegee dem ba àgg ci sikkar ànd ak faddu fadduk lan mooy faddu ci lépp lu ma yàlla teew ak yàlla barhamu baun waraun alifun thumma ha